asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi waaye mbokk yi déglu sunu kàddu ci États-Unis d'Amérique jour spécial muy jour Thanksgiving Day kañ lay doon alxames bi ñu jëm yamook la 24 di Thursday kon nag parents yi nga xam ne ni ñooy togg ci kër yi war a get together ak seen famille kon ñu ngi ñaan parents yëpp ñu ñëw daje ci zawiya maam Seydi Hadji malik alxames bi ñu jëm di Thursday ñu daje fa niñ ko daa defee jàng tey siiru maam Seydi Hadji malik waaye gën a xamalaat xale yi seen diine ak lan lañu moom seen culture seen aada lépp loo xam ni war nañ koo mën a def te méngoo ak diine nañ ko doon defe association des jeunes tidianes ànd ci ak soxna Oumou Sy Jamil ak képp koo xam ne ni yaa ngi dooleel lislaam di jàppule ay xale ñu ngi lay invité alxames bi ñu jëm ca zawiye mam Seydi Hadji Malick si nañ koy defee ñu waxtaan daje ak xale yi jox leen ñu reer kon nag bu ko kenn tardé ban heure lay doon six heures ci ngoon ba neuf ci guddi muy six pm ba nine pm kon mbokk yi bu kenn tardé bis boobu yaakaar naa ne képp koo xam ne nii rek yaa ngi bëgg diine waaye yaa ngi bëgg a jàppale ay xale itam bis boobu ce jour ñu ànd ci ak sponsor bu am solo di Jacob restaurant ak Mandiaye Gueye yaakaar naa ni jour spécial ku ci bëgg moor information wal Kader Sarr wala nga woo Fifi Diaw Diop Lambaye Daouda ku Koukou Diop ak képp koo xam ne nii bëgg ngaa jàppale ci xale yi seetal li nga am nga jolleel ko muy vingt dollars nga am cinquante dollars cent dollars bu limité sa jàppale ndax ay xale la ñuy dimbale te képp ku fa ñëw bëgg nañ nga reer waaye bëgg nañ itam ñu jàngalaat xale yi seen diine kon mbokk yi jour baa ngi noonu seen jour la Thursday le 24 6 h ba 9 pm ci zawiya Maam Seydi Hadji Malick Sy kon rendez-vous bu ko kenn tardé incha allah bango